Macky dem Sonko bu gisee loolu yëpp nit ñi xiif liggéeyuñu léegi lan moo gën a garaaw Sonko di xastaate di menacer Macky Sall ah? ak Macky Sall di bàyyi nit ñi di dee ay bébé di dee ah ju ñu wax ay ay ay plan wu sept cent milliards sept cent soixante trois milliards gisuñu ko lan moo gën a garaaw yow foofu nga juumee ay satu ay satu Diop xëy na Sonko méthode que muy utiliser man à 100% mais nak, jëlee fi Macky Sall troisième mandat est-ce que lolu combat bu jara la wala bu jarul xeex ñun fofu opposition bo xamné dañuy ñëw Macky Sall di ah est-ce que lolu jëree fi Macky Sall wala Ousmane Sonko di dara mais Ousmane Ousmane Sonko def na fi dara bu fi won dara tay du wara dem gisanteeg directeur ONAS parce que directeur ONAS moko wo ne ko kay aljuma nga ñew ñu wax ci affaire inondation be ñaati xaliss la genn mais Macky Sall ci liñu bind tay ak secrétaire d'État présidence muy euh, Boun Abdallah John ñom ñoo wo ak ministre Cham euh, ñom ñoo wo ñom ñoo wo na Sakho ne ko boo fi tas boo fexee ba Ousmane Sonko ñëw foofu di nga di nga am problème léegi Lansana Sakho dafa obligé daal di wax ne ah Ousmane Sonko mënatuma euh, euh, gisante ak yow nañ ko dàq ba beneen yoon. dañoo ragal Sonko wax yëpp loolu la Aïssatou Diop Fall daal ñun li ñu koy wax mooy journaliste boo ko nekkee dangay ngay xam ne journaliste nga journaliste waroo génn di di di def loo xam ne day nduroog par parloo di wax ay bugaan ah ah. warul woon tontu Sonko ndax Bougane au moins am na lu mu fi def loo xam ne Sonko defu defu ko fi xanaa yow da ngaa bëgg buñ la dàqee Bougane jël la parce que nee nga Bougane journaliste yu bëri sonn mu ngi nii di leen jël mais loolu loolu moo tax ngay defant Bougane Bougane moo tooñ moo tooñ Ousmane Sonko xam nga Bougane moo tooñ Ousmane Sonko parce que moom moo génn di wax ne inondation bi dañ koy politiquer loolu la génn wax Ousmane Sonko tam daal di ko tontu. kon Aïssatou Diop Fall booy booy wax da ngay xam li ngay wax lan la defal sa liggéey toogal TFM tu n'es pas une experte ndax koo fi jàng xëy benn jour rek bëgg ñu bugg la imposer ci benn émission nga nekk fa di ratatati lu ne nga koy wax daf ne baax da nga koy wax Ousmane Sonko tey bu ñu defoon élection Ziguinchor moom mooy nekk maire Ziguinchor loolu dafa leer loolu tax élection yi ba léegi ñu koy dàq xam nga man nag Sénégal la ñu war a jiital xam nga Macky Sall laa àndaloon que dama yaakaaroon ne day joob ma gis teer gis euh, aéroport Diass gis jam ñaajo ma gis BRT Ila Touba yooyu yëpp ñu amuñ ci yaakaar mais Ila Touba ba mi ngi nii pare amuñ sax ku koy ku ko chinois yi bëggatuñ ko bëggatuñ ko sax ku koy gérer TER bi dem na TER ah mais loolu tax ñun ñu génn ci Macky Sall ñun senegal la ñu jiital mais Ousmane Sonko moom moo fi génne di wax ne Macky Sall. dafa yore daf ñu daf ñu dafa lebal lebal leb xaalis ba il n'a plus les moyens de sa politique mais loolu dëgg la daan ànd ak Macky la terewul bu ñu xoolee ni depuis deux mille dix neuf Macky def fi dara yow sax wax nga ko Macky Sall kenn bu ko gis deful dara kon am nañ droit ñun ñu ànd ak moom dem ba ci biir gis ne fu mu nekk nii yëf yi dafa ndóol ñu xool kan lañ ko daf fi war a jugee Macky Sall daf fi war a jugee 2024 amul troisième mandat ndax 8000 milliards de de de dette gars yi nañu ñetti milliards ci bor Macky Sall dafa dafa ba légui xam nga lan politique politique nañu di nañu tubaab yi bal bor bi. légui di wax parce que moom xam na ne limu limu lef mënu ko fay parce que bu dee bis bu nekk comme ni ko ngi fay milliards ngi milliard. ci li nga amel tuba bi bis bu nek te milliards yor les teg la les la moy intérêt kon Macky Sall amutul xaalis motax ligi ben politique rek la am moy sarxu tuba bi dimbal leen ñu ngeen bal ñu bor bi wa bor bi lo ci def wax jep loolu la loolu nag la Ousmane Sonko wax dafa ne bor bobu ñu lo jox nga dem di leb di leb di leb di leb ba ñu juroom ñetti junni milliards bo fi juggé 2024 di nga ñu wax fan la fan nga dugal bor bi loolu la Ousmane Sonko wax loolu rek la wax ñun nag waxuñu ne li am Mali day am Sénégal parce que ak Mali ak Sénégal nous benn ñun ñu wax Macky Sall président dina fi toog ba 2024 te gis nga boo leen dof dof 2024 bu Macky Sall dina nax dina nax euh, mais loolu nag bu amee ñun suñu yoon nekku ci parce que nous tam xam nañ nekk ci diaspora bi bu bu ñuy bëri bëri bëri ay 1 million la ñuy doon 2 millions majorité sénégalaise bi majorité sénégalaise bi mooy mooy ñu nekk Sénégal te ñooñu xamuñu li xew ñooñu bu ñu bu doon dee ak xiif ah buñ ñu doon dee lekk ñu naan bu Macky Sall ñëwee wala Marème Faye Sall ñëw jox leen xaalis wala euh, xam nga ci élection yi ñu nax leen ñu voté Macky Sall léegi bu ñu voté Macky Sall ne Macky Sall mën na fi toogaat euh, ba 2035 mais loolu ñun lan lañ ci mën. mu ñu ànd ak Sonko ñu ànd ak Barthélemy surtout ñu nekk diaspora bi dañ yaakaar ne li am Mali wala li am Côte d'Ivoire nii rek Sénégal fi mu nekk changé na ba ku nekk di jóg Bougane xëy na looloo tax mu jóg Bougane nag kenn déggutu ko woon xëy na nag li ñu gis affaire Mali bi moo tax ñu bëri commencé am fit lu ne ñuy wax mais Macky Sall boo leen yaakaar daf fi ndax loolu yéen a ngi nax san bokk na ci bàyyi pétrole bi mukk mukk mukk te Macky Sall dafa jënd ay ay char de combat jënd ay liif jox ko policiers yi Sall dafa pare pour xeex te aussi même bu xeex sax mais population sénégalaise egg amaguñu benn maturité politique boo xam ne xam nga dinañ def comme waa Mali li ñuy def di génn wala wala ne dañ fiy jëlee Macky Sall ndax sëriñ yi Macky Sall la àndal gars réalité yooyu yëpp il faut ngeen wax ko mais nag ñun am nañ droit ñu ne nu mu mënti demee nu mu mënti demee ñun gis nañ ne Macky Sall dafa ndara cinq Sénégal man loolu laa jàpp waaw li ko dese ne jéem a joob ñu xool. 2024 après bu fi waree jóge mu fi si 2024 Macky Sall lan la fi mën def lan la fi mën a def loolu mooy problème bi voilà gars yi man daal li wax rek euh, Aïssatou Diop Fall na def émission na xalaatam mu li wax les attaques personnelles contre Sonko you better Nation is done. Paramare number one. Wall is number one. battle is one. The mission is done. Paramare number one. Wall is number one. battle is one.